question laata ñuy dem euh, Nabien parce que après dañoo war a marquer une petite page de pub et dugg si waxtaanu société c'est important xam naa xale yi ñu ngi koy xaar na fi jëy mu ngi koy xaar également mais. Euh, euh, justement euh, ñu bëgg wax ni que tout à l'heure depuis tout à l'heure ñu ngi wax ni que secteur privé dañ koy euh, écraser entre autres si on peut le mettre entre guillemets euh, docteur est-ce que tey jotul ñu dolel suñu secteur privé national suñu bëggee régler ce problème du chômage parce que Pape Mactar mu ngi lay citer tout à l'heure comme exemple est-ce que jotul ñu dooleel suñu secteur privé ankay mais dafa am loo xam ne c'est des béaba de choses kenn mënul am bébé bu rafet te duwul ne da ngaa dékku méttu méttitu euh, kii matu matu mm. woo ku ko traversé wul doo jur doom ñun fi ne ñi ngi jógee ci benn phase bi xam ne mañ ko di la phase zéro mu suñ cee génn ba bërki démb fi ne ñu ngi au moins phase 1 euh, point 0 parce que euh, léegi ni goudron yi ngay jaar niñ leen organiser dañu ci organiser waale oto buy rouler à gauche ci wedeer bi mënoo bu njëkk nag mënoon nga jaar à dafa am ay inconvénients yu nekk ci transportation jóge ci benn benn zone dem ci benn zone ñi ngi dem ñi ñi ngi gën di dem au jour le jour ci ay structuration l'informel va diminuer chaque jour dans ce qu'il apporte parce que plus tu de formel moins tu as d'informel mais cela ne veut pas dire que la l'informel est toujours une, la voie royale mm même ay Bill Gates ay euh, Elon Musk ñooñ ñëpp dañoo génnee ci un certain informel bañ demee ci informe bu mag ba mais looloo tax tey ñu mën a créer ay yëf yoo xam ne comme euh, TikTok évolution la mais TikTok en réalité moo remplacé léebu lu bon ba njëkk sa kaw maam ngay tëdd mu ne la waaw nekkoon na fi daan na woon du mbelaan mili mili mili mais mënoo pour autant taxaw ne non non yii dafa tax suñu maam du ñu mën a léebal ah kay demal sama mu léebal la mais bàyyi fi TikTok je veux ñu ngi ñun nañu bëgg à la fois le beurre et l'argent du beurre dañoo bëgg euh, li nga xam ne mooy euh, mooy euh, am na ay avantages ci ñu ko yore ak évolution bi li mu imposé parce que boo xasee ba def autoroute rek interdit nga ko saret ak mbaam mais boo nee borom saret yi mer nañ borom mbaam yi mer nañ ñun am na côté boo xam ne dañu war a conformer wu à la réalité du Sénégal ki avance par rapport à des réalités de, de, de, du Sénégal de l'esclavage de la colonisation et même de la post-colonisation mm-hmm. loolu nag toxu bi ñuy toxu dana créer ay traumatisme mais mais docteur par rapport ak réalité bi ngay wax on sait que suñu économie secteur informel am na ci solo moo xam artisan yi ak uude yi yow ban ban approche nga gisoon par rapport ak lu ñuy doolelee artisanat bi comme suñu uude yi tailleur yi ak nga ñun ñëpp ci ay néegi ñax lañ juddoo mais nañ tabax kër gi ñi doon fanaan ci néegi ñax bi buñ ko bañ du dëgg bari na yoo xam ne nit ñi niñ ko déggee moo koy par exemple ñi fi njëkk a jógee Sénégal ma xamu leen kon ma xamal leen ko ñi fi njëkk a jógee Sénégal dugg bato dem aji biñ ñëwee sëriñ si dañu ne amuñu aj ñu ne lu tax ñu ne bato bi yéefara ko doon dawal te di dem ci yonent Yàlla Muhammad amoo ku la yóbbu lu may benn yéefar kon a mais euh, euh c'est xam naa dañuy dem na bien euh, marqué après une petite page de pub revenir euh, ñu ngi dégg suñu papa di ni que mën nañ ko takk sax ci car rapide donc loolu après il faut mu expliquer ñu ko ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi koy dégg c'est important donc dañ koy dinañ ànd ak moom léegi lay doon incha allah mais damay ñëw ci Mouhamed Mbaye Mouhamed sangu-sang yi maa lox loolu hmm. waaw waaw foofu moom bëgg naa ñu dugg fa lool suñu bàyyi daal di ko leeral euh, maa ngi nuyu bu baax a baax euh, waa njaareem sama dëkku yaay nag waa Ndóomóor euh, baax Ahmed xam nga Ndóomóor Ndóomóor Diop ah Baye Ahmed ah? xam nga dëkk bu ñox Ndóomóor dëkk ba déedéet mu ngi ci ginnaaw Tiwaawan diggante Tiwaawan ak waaw xam naa Mboro ak la ko wër yëpp waaw kay côté boobu nag waa Ndóomóor ñoom maa leen di nuyu te di leen ziar tey nag maa ngi dalal Xaaji Moustapha dama bëgg nga daal di bégal sama baay ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ñu daal dem publicité nag bu ñëwaatee ba bégalaat sunu baay ci waxtaan wi doo koy bégalante ñun ci sunu biir kenn du njool màkk يماصل من تودع وخصوه القلب والرتم لك وهذا ما حاز لكن لا يماثل من تودع وخصوع القلب والرتم سيدنا وصلي وعلى صبي سيدنا محمد def leen lii ci min kulli wasfin hamidin hada afala taf جاء أسقى الناس أحصنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والأمم وصلي يا إلهي واجزي عن دفلني عن

خلقا وخلقا وخير الحزب والأمة الحاج مالك الكل وعلى صفحة سيدنا محمد دفنين مع قلسك بيت مدينة يا رسول الله أت دفلني الأخ وكان أس جاء أس قناس أخ سنه خلقا وخلقا وخير لعين